ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production a ko ngir mën a xam li nga ne mooy Seydina Muhammad bindam ba sell Seydina Muhammad bindam ba sell tiram yaa jot mu sempal borom ba ko mool du cuune te kaas Seydina Muhammad bindam ba sell tiram ba ko mool Seydina Muhammad bindam ba sell tiram yaa jot mu sempal borom ba ko mool du cuune te kaari a aasim seydina muhammad te gëmb ko mool kuluur ko silam ko moo xay tabaaraka fii kenn du fi mel ne a aasim seydina muhammad gudul ba ni sell waaju ko seen cay kaar seydina muhammad def la ab duuñ ba tax ngeen a cam fa a aasim seydina muhammad réel na fa tax nagaañe dox di fangat di fang ba mel ni mbaami tugal fa a aasim Seydina Muhammad wowal ba ne koŋŋ te yaramam du laal weñ si wol ba ne lambaxit ak a jum na Seydina Muhammad de saf kumbaliiti soo ba ne ruute sooful ñeen to du may taxawaay aas Seydina Muhammad wetam dafa njandi biram saw ma xaaraar lu sul noojul li xam ya laaj fa aas Seydina Muhammad ndikame ni xiit digal tama lan ko moolal te dox ga def na yul te barfe aas Seydina Muhammad sumus naa kangara sumus naa kangara sumus naa yow nga ne ko tay say sumuña may mel di mel xat fa as njaman yàllaam ak jaay yàllaam njaman yàllaam ak jaay yàllaam yaa si jubdu ale du ma asaasi Seydina Muhammad su defoon wate maa la jox sama carte xol bi ndeyam say candidat minni aasim sayyidina muhammad yow yaa ma jaral war fal naaw abi yongi sanni ma bamba yaa aasim te xool na ah yal na Sëriñ Tuubaa na defar suñuy bir baatinan a baana ah wax balla bile Muusa a ànd ak Sëriñ Tuubaa taggo ak Muusa ah yal na sëriñ bi boole dimbali te defal na tawfeex biir ak biti jëwriñ ñoo ngi lay saare bu baax jëwriñ Alaaji mbakk yi fay ñoo ngi lay saare bu baax di la nuyu nuyoo bu tedd dafa am nuyoo tool bi yëpp di ko jaarale ci sa jëmm barka alxuraan barka xasaay bi di la sant te di la ñaanal yàlla guddal sa fan te bàyyi la fi jumaa ji nga liggéeyal sëñ Tuubaa ba mu sotti dañu bari ci sëriñ seen taalibe yi taxawoon ni da nga lekk xaalis bi nga liggéey ko ba mu def sa alal ak sa doole ak sa jom ak sa njàmbaar sëñ Tuubaa fay na la tontul na la it bu baax a baax lii ma société yi doon wax naan duma la fen duma la war loolu du ay wax ay tontu la <laughs> ay tontu la ñu déggul nag dégguñu waaye borom xel moom junju doy na ko xam nañ la nga wax bu baax a baax